bismillaahi mooy turu yàlla ci turu yàlla gis nga lépp looy def te commencé waloo ko bismillaahi loolu du am barke kullu shay'in lam yubda bi bismillaahi fa huwa abtar yéen tamit ne lépp looy tàmbalee te amul turu yàlla loolu du barke moo tax booy sol dàll bismillaah booy dugg ci kër bismillaah booy génn sa kër bismillaah boo dugg see sa kër ne bisimilah lan la ci yonente bi mu ne seytaane yi dañuy génn ne fii xëjuñu waaye boo waxul bisimilah nag mu ne ñu ànd ak yow booy ndekk ñu ndekk booy añ ñuy booy reer ñuy reer soxna sa ñu xew ci kër gi dañ ciy bokk waaye boo ne bisimilahi bu boobaa nag ñu génn ne fii moom mën nañ fi fanaan mën nañ fi yenn parce que turu yàlla bi daf leen di làkk di làkk comme am nga gaz gaz boo ko ubbi woon ci biir néeg bi ci biir waañ est-ce que da nga mën a boo mën a tey noyyi jaar génn boo ko defalee dangay gis yaram bi te ni muy làqee il faut nga génn gaaf gis nga noonu mu mel ci yow ba mën a toog du noyyi ci biir boo ne bisimilahi rahmaani rahim ci sa biir kër rek wala ci sa biir néeg rek seytaane yaa fa dëkk yëpp duñ fa tëjee jinne yu baax yi nag man nañ fa def ñun dañ xam tur dañuy dund ci tur waaye bu dee yéeféer yi noonu la leen di def yéeféer moo tax jinne bokkul ak waaw jinne mën na baax waaye seytaane moom moom ku baaxul moo tax mën na dekk nit mën na nekk jinne